waa mais xam nga Sophie kenn du jël lu dul sa cër. te kenn du lekk lu dul sa cër. Mm-hmm. yàlla daf ñoo séddaleel ku ne lim war a am. tey am na koo xam ne li nga koy jox te moomu ko mayoon ko duubul bi da koy gën. Mm-hmm. parce que Sophie àtte yàlla kenn waru koo soppi. est-ce que Sophie xam nga ni saxaaba yi xare nañu ba mu yàgg. am benn saxaaba boo xam ni moom gëm na yàlla gëm na yonent bi moom ci camp yonent bi la far mais papam bi ko jur ci beneen camp bi la far muy xeex di xeex di xeex ba daje papam papa ji xool ko mu xool ko mu ne ko papa yaa ma jur mais diine amul maslaa mm-hmm. fexeel ba bul ma jegewaat mm-hmm. te ñu ngi ci xare xeex di xeex ba dajewaat ak papam ni ko papa deux fois wa ngi nii may wax ak yow yaa ma jur de yaay sama way jur mais bokkuñu pas-pas ma ak yow man damaa gëm yàlla dëggal ko ba ànd ak yonent bi di xeex yow nag danga ko weddi su ma dajewaateeg yow du baax dajewaat ak papaam rocci jaaseem dagg bopp papaam xam nga bu dee sentiment kay fii la war a am. dagg sa bopp papa bi la jur jàpp ci nopp bi dire deret ji mel ni rëbi na muy muy muy walangaan mu téye bopp bi ba ci ba ci kanamu yonent bi. ne ko yàlla la de. waaw ne ko kii nag. Mhm. mooy sam moo ma jur. su ma ko defee nii kon xalaat naa keneen koo xam ne dalaa bañ te juruma segam sam papa def nii yonent bi comme nit la image bi mel ni lu ko xaw a tur tur turturbe lañ koy wax xaw ma ah, lu ko perturbé waaw ci kii lay ci kii nii mu def papaam ndax diine ndax diine waaw yonent bi xaw a mel ni ku xaw a kii tuuti rek yàlla yoon yónni jibril ne ko boo demee ne ko laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmi al axiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum yàlla nee na bul amati kersa mukk walla ngay xaw a mel ni ku ku ku xaw a jaaxle wala ku xaw a am yërmande ci diine joo xam ni moo ko seggal boppam tëralal ko boppam ne nii laa koy def. dëgg la oustaz doguma la mais ma xamal la tuuti. gis nga fa yàlla kii ba fa sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam egg ba tax yàlla wàccee aaya woowa te nga xam ne moom mooy gën di mbindeef sunu borom wàccee aaya woowu wax ko ko déy ko ko ne ko ak lu mu tiis tiis lu mu tànk tànk lu mu tartar bul jaawale leen su dëgg jotee gis nga ngit kooku nga xam ne moo juddoo ci anam yooyu jant boo ko ko waxee dina ko egg sax mën na ko egg fa raw fa mu egg yonent ba. dëgg la dana ko choqué. ah yow yaa ne yonent bi. kii dafa def lii rek mu perturbé ko. waa léegi nag. mooy la ndaw si wax léegi. dëgg mu génne waa léegi Sophie. néew ma bu ko wax yow fi yàlla la moraaluma de. bu ñu demee ba wax moraaluma. Sophie moraaluma de. waaw waaye nag. maanaam bu ñu yonent bay dem ba trembale moom laa wax bu ñu hmm. demee ba wax choqué yonent bi. wala jëf choqué ko. Hmm. sàkkantuma laa kooku. waaw man li may bañ rek. mooy oustaz loolu nan lañ koy waxee parce que bokk ko waxee mën naa tàngam nangam nangam mais munoo wax ba mu bokk ci alal ji parce que bokku ci. waaw. léegi nag père ki ci bokkul. dañ mais ndaw si daf laa laaj dala ne. waaw loolu nan la nit di jàkkaarloo ak doomu aadama di ko wax. mais xanaa jàkkaarloog nit wax ko ko rek. mu xam dëgg bi mu xam ko rek dëgg maslaha. après mu jeex. xam nga Seydina Omar boo gisee. ñu mhm. tuddee ko alfa ruux. Mhm. parce que daf daan teqale dëgg ak neen. Omar dafa ñeme woon dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan werenteeg Omar Omar ni ko nii la yonent bi ne ko du nii nii la ñu werante ñoom ñaar ba Jibril lay ñëw àtte leen ñoom ñaar jël dëgg gi jox ko Omar. su ab quartier taxawoon mais wa kam nazala al ayaatu wifqan lima bihi abu xafsin al mahdi yi kaane yaqulu. ab quartier taxawoon la. ba pour nga dem gàddu leen seen ñàkk kersa. di leen ko gàddu non du ñàkk kersa. dama lay mais ak condition yi. Eh, lii ma la laaj dinaa mhm. dama ne. waaw sa waa quartier suñu taxawoon. Mhm. lëf jib. Mhm. yow nu yabal la pour nga dem waxi ko di nga dem. ak condition yi may yebale ak itam man est-ce que am naa accès wu ci foofu ak xam na naka la demee ba ma cay dugg. même soo xam que man bu doon lu ma concerné man sama doomu bopp. wala koo xam ni sama doomu frère la. nga xam ni am naa ci sañ-sañ. Mm-hmm. xam nga lislaam nag def ni min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaani mm-hmm. nit lu sa yoon nekkul da nga cay neutre. tey ki nga xam ne bokkuma ak moom famille bokkuñu amuñu. benn alaaka bi maanaam benn relation bi ba ma war a am accès dugg ci vie privée naan doomam eh yow judduwoo ci yoon foofu moom àgguma fa léegi su fekkente ne da nga ko fekkee xam ko am ci accès taxaw ñu nekk ca koñ am ci accès ne ne nekk ca koñ ba yow nga nekk fa yow nga nekk ca koñ ba yow yow yaa fa nekk yaa ñeneen mais yow ba parmi sa moroom yaa nga fa nekkal yow mën ngaa jàkkaarloo ak moom dem maanaam lu mel noonu jib xew ci kii yow mën ngaa jàkkaarloo moom dem étant lucide nga jàkkaarloo ak être humain bi. wax ko dëgg waaw. xam nga kañ laa koy am bu fekkee xale boobu damaa am accès ci moom. kay leeral naa la. mais bu ma amul accès ci moom du ma ko wax. ak am nga accès ci moom ndax mi miraas leen boole. déedéet. waaw mais yow dañ la man ki ma am accès ci moom père. xam nga man kan laa am accès ci moom. koo xam ne maag moom ay ay ay ay ay mbokk lanu jege woo jege woo xam ni man am naa responsabilité ci moom par exemple mu dal sama rakk wala mu dal sama mag problème bi yëpp mooy waajur dafa mais famille jàmbur du ma dem naan la yow mii bokkoo ci miiras bi xam nga oustaz oustaz bi waajur bee ko war a def problème bi mooy du yow yaa am responsabilité pour di naan lii la wala lee la tey fautif bi mooy ki nga xamante ne moom moo am lu mu def te mm-hmm. junjul doomam wala tegu ko ci yoon bu ëllëg si biir am na dal ci yoon yow li ngay tax deuxième femme mm-hmm. ne ma oustaz comme aaw bi sa soppe la xam naa boo ko mënoon a woo rek. expliqué ko xamal ko ni lii jaamu yàlla na ma ne ko man oustaz Modou Fall day du may woo kenn naan la takkal nañ la wujj. boo koy woo daal nga woo ko sa bopp. 88 628 89 90 88 lan nga ca doon daw parce que moom moo ma gën a yell ci wax jabaram takkal naa la wujj moo takk takkoo mooy wax. salaamaaleykum. papa wax la ak moom. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam góor gi. waa sëñ bi naka def. waa léegi dama bëggoon a dellu si rek ci foofu ngeen toll. waaw baax na waaw yaa ngi ci parenthèse la rek xam naa ne waa de hmm. boo ko seetee. am na raccourci boo xam ne boo xam ne nii yombaloon na ko. waaw. ndax euh, comme wayjur wi wala doom ji mën na may mën na may wayjuram wala wayjur wi mën na may doomam. waaw. loolu koy yombal na ko. moom na ko may rek. durant muy dund dara jot ko. waaw ca muy dund waaw. te xamal ko ne ko nag bu ma dee bu yaakaar. Ah, mooy wax ji rek ah. yàlla ñëpp nag. lu mu tegal rek. waaw c'est parce loolu loolu loolu rek rek boobu doy waaye nag. Mm, ah. comme ni ko oustaz waxee. waaw. Sénégal dafa bëri maslaa ba nga xam ne. maslaa rafetal. ba nga xam ne nii dinañ cër koo xam ne warutoon ni cëru ñu cër ko. waaw waaw waaw am na waaw sax beneen bu ma bëggoon ñu xam naa ne. boo waaw dikkal dikkal dikkal. mooy parfois nga gis xale bu jigéen boo xam ne. waaw. leer na ko ni jël na ëmb. waaw. mu kóolati ak yaayam. waaw. ñu maye ko ci biir ëmb bi. waaw am na waaw. dëgg la xam nga loolu sëy ba lu mu yàgg yàgg sëy ba na ñoo xam ne nag suñ demee ba ca biir ñu xam ko doon mu complété ak yaayam. yi parce que kenn du takk sëy ci kaw ëmb. laay laay soo wéru. te ñoom ñu ngi ànd. waaw. léegi loolu tamit bëggoon naa bàyyi ko xel parce que am nañu ko dañuy ñu ngi ciy ñëw léegi nii balaa laataa may jël keneen balaa oustaz ñu lay jox kàddu gi papa nga ni. bu fekkee dañu may nit. borom kër fekk moom mu nekk. ndaxte bala nu koy maye. waaw doonu naan. ndax nekkul ci buum. waaw ñu ne déedéet. ñu ne ndax alalu góor gàccuwul ci loosam ñu ne déedéet ñu ne. ndax ëmb topp ko ñu ne déedéet ñu soog a ne alxayri imaam soog ko maye su ko imaam mayee nag ah yooyu yëpp dañ koy laajte waaw waaw fi mu toog waaw xam nga ñun l'habitude du ñuy fekkee su ko imaam mayee nag ba pare ñu ne loolu gàccu ci fekk ne nduxum am na ca lool ñu ngi koy nëbbaale di ko nëpp nëppal ca biir mm-hmm. suñu demee ba imaam yëg ko mm-hmm. na da woote mbooloo ma nan toll mu tas ko gis nga su ko tasul ña ko yéewoon di ko maye faaw dina ci am ku génn àdduna loolu aada la wala lislaam <laughs> dama bëgg a xam li li fi fekk la voilà culturellement la ma gis li mu fi ñi nga xam ne ñoo demoon ñaani ji. waaw soxna soosu. kenn da ciy dee parce que bi dafa la ñu may ko ci kaw wan lor. ko ci kaw kii il faut mu am kenn ku ci dee. ba faaw dina am ko ci important il faut ñu bàyyi ci xel. man maa te nag seetuma ci oustaz seetuma ci kii damaa dox fu wér laa ko wóor. Ah, waaw culture c' est ci bàyyi. <laughs> aada dañ ko fee bàyyi. su ngeen ko seetaanee ku ko ci seetaan yéew ko maye ko ngeen dem ba nimmi ko ko tasaatu leen ko dina ci am ku génn àdduna ca mbooloo mooma ci diir bu gàtt. kon kon nii nii dem maye war nañu di di enquête bu baax. moo tax doon koy laaj soo nëbbee yaa xam yow ma ko xam dëgg sa tànk nëbb ko nag lu ci ëpp. sa kaw lay wàcc. nit ka ka nëbb mooy dee. Oustaz ñëwal Oustaz la nga nii ba sonn nii mais dafa am sew sew bu ci am. Hmm. bu fekkee ndaw si ak ku góor ki dañuy génn. Hmm. ñu dem ba ñoom ñaar ñëpp ñu yëg ni am na lu xew. ñu waxtaan ne comme ëmb am na ci sunu diggante. nañu profité combine maak yow tëjal sa làmmiñ ma tëj sama làmmiñ nga yónni say mbokk ñu takk sëy bi. ba tey parents yi xamuñu. parents yi xamuñu ko. Mm-hmm. ci lislaam mm-hmm. bu ñu takkee sëy bi dawal tuuti xam ni sëy bi dañ koo takk ci ëmb. Mm-hmm. te ñoom ñaar dañoo waxtaanoon ba d'accord ci. nga ni patt ma ni patt ñu takk sëy bi buñ ko yëgee ci lislaam dañ koy tas. du ñu yem rek ci tas ko mais ñoom ñaar mënatuñoo sëy ilaa yawmi diin. waaw mënatuñoo sëy bi doon araam. bu fekkee mais mënatuñoo sëy bi. su fi day fekk nag dañoo combinoon ñoom ñaar. bu fekkee dañoo yëgoo. nekk mais bu fekkee yëgoo wuñ. Ah. bu fekkee yëgoo wuñ. maanaam ay complice lañ mënatuñoo sëy. waa même ma ñëw. bu fekkee dañoo loolu mënta nekk te yëguñu ko ñoom ñaar. sofi dëgg la nga war ma lool. sofi dem ba sa période règle jot. sofi <laughs> gisoo dara waaw sofi man dama lay wax li l'islam wax. waaw teg si l'islam laa lay wax. <laughs> li charia rëdd. Mm-hmm. bu fekkee dañoo combine maag yow. Mhm. ñu dem ba ci biir mu feeñ. Mhm. buñ ko tasee takkaat mënatu faa am danga may araam ilaa yow mi diin. Mhm. mais bu fekkente ni bii nag yëguñu ko. dañoo takk sëy bi daal ñu dem ba ci biir. man la papa papa man daa mel damaa ëmb. ndeysaan nga ne ma ah damaa ëmb. boobu fekk na daa ngeen seq yëg nga ëmb bi. boobu daa ngeen seq. yëg nga ko yëg naa ko. boobu daa ngeen seq tàng tàng bi dañ koy tas. mais buñ ko tasee bu ndaw si xasee am doom mën naa kaa takkaat parce que ëmb bi dañoo dab ci biir te yëgul yëguma mhm. bokkul ak bi nga xam ni nag da nga ni sawaay neel pat ma ni pat ñu takk sëy bi boobu moom combine bi sanction bi ci l'islam mooy pare nga ci man pare naa ci yow ba ilaa yow loolu moo fi ëpp loolu moo fi ëpp cest à ñi nga xam ne ku góor ki day xam ne yow mii de. Mhm. wann nga lor man ma xam ne wannu naa lor. mais nañ ko nëbbu parents yi parce que man sama yaay bu xamee ne damaa ëmb sama àdduna tey mu la fiy jeex. ñu daan ñu takk ñu mais li jiitu ëmb sax léegi am na jigéen ñoo xam ne bu alxayri jibee rek la ñuy dem ci pharmacie bi jënd loo xamante ne bii day tax ñu xam ni kii téye woon na boppam. Mhm. maanaam loolu ñuy wax ndaw xaw ma nee nañ léegi pharmacie yi am na ñoom ñu ngi koy jaay nga amaat ko mel ni nga mel mais nag loo ko mën a amaat amaat amaat téléphone bi chinois bi defar ak ba ñu defaree ca usine ba mënuñoo yem. te am na loo xam ne nax sa bopp la su réew mi moo toll foo xam ne bu la daray àdduna jaral bazarde sa bopp mm-hmm. parce que ku wét ci ruq mën a kan rek am kers mm-hmm. te bànneexu cinq minutes jarul gàcce àdduna ak alaaxir fi mu ne yi ñuy wax nii yëpp naan ay nokk ak duma xool su fi yi ñuy wax nii yëpp naan ay dana doon ak nokk kay waxee naan ko doo doomu yoon ak yooyu yëpp bànneexu cinq minutes la rek ah. mm-hmm. bànneexu cinq minutes. ah nga toj ko àdduna ak alaaxira hmm. soo ko di nga gis ku takk jabar ñoom sëy ak soxnaam ay at amuñu bant. Uh-huh. bis bu ne mu ànd ak soxnaam sëy mais amuñu am amagul doom. Uh-huh. Uh-huh. mais mu dajee benn femme di sàcc cinq minutes yàlla ni ko ne comme da ngay sàcc cinq minutes jëlal. loolu de mooy dañ laa weer. waaw waaw ah, nga am ko.